ité bi am may dama koy au delà de cette interview dañ ko wax ñun presse sénégalaise yow xam nga du man je par parle pas de façon euh, fla fla mais ce qui les ce qu'on appelle les de presse ce qu'on appelle ni jiite mais kenn yéenewul sa moroom jàmm loolu moom dëgg la attends boo mbootaay bi mbootaay bu ñu toog mu tas mënuñu toog mbootaay di mais attends mais may mun ne su fekkee ñun suñu biir xoolal déggoowuñu ah bëggantewuñu kenn am jàmm kenn yéenewul sa morom bañ a xàccandoo dóoraloo da nga def ne ko jàkkaarloo ñun mooy ñëw nekk général notre part c'est-à-dire aujourd'hui président Macky Sall su ne woon damay def une interview et loolu dama ko dund à l'intérieur c'était traumatisant traumatisant par rapport non xam nga traumatisant c'est-à-dire président day wax day wax ak ñetti organ mais c'est-à-dire waxuma sax président mais yaa xam bay yow dee nga yow ñu xam ni yaa ngi ci biir organisation soo yeewoo 365 cent dinañ cinq say mbóot. non comment ils comment la presse s'est comportée euh, avec l'entretien de El Hadj Assane. waaw léegi dama lay expliqué non dama may li may gàtt. je suis tout li may ñàkk solo ak lépp. bu fàtte ni liggéey naa ci cellule communication président de la république président def ma encore membre du gouvernement secrétaire d'État à la communication li ma xam yépp su ma ko waxoon dëkk bi toj te Macky dina ma yedd. mais d'ailleurs d'abord fii ba ñuy wax on peut mais on parle mais Macky Sall n'est pas la seule personnalité politique du monde de la sous-région c'est-à-dire fii suñu jikko ñun général soo gisoon fii sax benn chaîne de télévision wala mooy mun a déplacer kii euh, équipe dem fële le président le militaire guinéen dem. Euh, le président guinéen kii lu ñuy njëkk a xalaat. ñaata la ñaata la am na fii du temps de de de de Alpha Alpha Condé. au pouvoir am am na média bu fi demoon def un truc avec euh, Alpha Condé mais lu ñu ci déggul dañ koy donc parfois foog ñu am honnêteté gis nga parfois peut-être muy Macky Sall wala muy ki ko jiitu woon wala kii ñëw après di nga gis muy daw sax dem di wax presse Mauritanie presse Centrafrique presse France c'est que xam nga boobu lañ lay bañ am ku mu waxal en se disant que si je parle à Maïmouna j'aurai cinq qui vont me fusiller non Macky Sall ne manque xam nga Macky jaraluma sama bàmmeel le président Macky Sall jaraluma mooy toog fii askan yi ab pàcc ci askan bi dama seetaan may wax lu du dëgg jaraluma sax Macky fa mu toog peut-être di ma seetaan wala un jour mu seetaan ko di wax mais yaa xam moo man garaaw moo mën wax loo amul Macky Sall je ne l'ai jamais entendu je ne l'ai jamais vu mu am comportement de mépris vis-à-vis de la presse. Non, pas un comportement mais le problème éternel qu'on a ici, ici, quand tu, oh, mais Sénégal, mais quand tu te réveilles ici, ñu ni un organe de presse à interviewé le président de la République. xamal ni jour boobu ba ci mois bi ci topp tu as dix organes de presse. qui vont t'attaquer qui non qui sont mais duñu la sax attaqué xam nga lu ñu lay topp di la coytu. ba nga am jombe booy nëbbu ñu ne ko fangeet génn. <laughs> je suis tout à fait eh, tu as tu as tu as parfaitement. mais gis nga parfois fii su ñu ñëwaan toog ni le président mais combien de fois je me souviens El Hadj Kassé ñun Seydou Gueye toog nañ ci schéma yooyu pour def benn affaire dajale mais quand on a fait le face à face entre le président et des journalistes ah de groupes de presse différents. may mun a mais xamoo liñ ci dégg xamoo liñ ci daj xamoo ni des gens nous ont pris à partir de ce jour-là comme des comme ennemis ad vitam aeternam bon man ça ne m'émeut pas parce que man lu ma waay wax su ma neexee ma delloo la ko su ma neexee ma tànqamlu la te si phase tànqamlu sax loolu leen wax du leen sax faale mais c'est ça la vérité c'est pas que c'est-à-dire aujourd'hui ça ne me coûte ça ne m'aurait rien coûté may man la Macky dafa jéppi ñii moo tax du leen def Macky non ici tu te dis si je parle à diw je me crée dix léegi xaaral ma dem fële wax te en plus xam lan moo gën a garaaw mooy je foofu laay daanele pour wan la ni jikko fii xam nga gis nga France 24 wala Paris Match wala l'Observateur su waxee journaliste sénégalais yëpp jël copie. wala def seen journal mais suñu ma Macky ñëw wax 2STV bi kenn du ko. non.